noppal yooyu wax na ne incha allah dana tàmbaliwaat liggéey bi àjjuma la onze waaye kàddu yooyu am na yi ko jiitu woon ci wàllu liggéey bi sëriñ bi lam ci waxoon mooy bokki taalib yi nga xam ne sëriñ Basiru de seen bunt ci sëriñ Touba ñoom la doon waxal ay baat baat yooyu weesuwul ginnaaw bu leen santee gërëm leen di xam leen rek bi nga xamee ne dafa jiite liggéey bi sëriñ Basiru da daan soññu taalib yi sëriñ Basiru yi ñuy dajale lañ am bu ñëwee mu boole ko lam am yóbbul ko ki fi nekkal Serigne Touba léegi nag bi liggéey bi Serigne Touba bi egg ci kawam mu war a soññi ñëpp itam bu sañ am na yéene ak na ci njabootu Serigne Bassirou bu sañoon kenn dem bàyyi leen des ginnaaw loolu nag la bëgg kenn ku nekk fa fetluwaat si góor góor nañ ko daan defee. ci la biir loolu am na ay lettre soññee yu ñu leen daan jox yoo xam ne Serigne Bassirou Serigne Moustapha la tàmbalee woon moom it bi mu mi ngi ko doon joxe. daa wucca toppi ay sas waaye daan wax ne lu man na ko def mboole ko lu mu am yodul ko yóbbi nekkal sëriñ Tuubaa loolu la waxaat ne lu waay am nan nga ko def lu waay mën na nga ko def lu waay am na nga ko génne ñu boole ko andi ko nun jabootu sëriñ Basiir nga xam sëriñ Basiir su mu sëriñ Tuubaa mu jox ko moom mi sëriñ Tuubaa mu defal ko ci liggéey ma da daan ànd ak ay lettre nag lettre yi mi ngi door ñu ngi ko door bind mi ngi door sotti kenn ku ne fa sab lettre daan jógee dana la fa jógee